télévision Futur Média ñi ngi dellu di leen nuyu dellu am mbégte bu yaatu di dikk ak yéen ci seen émission Faram Fàcce eh, ni ñu koy ànd ak yéen àllarba eh, bu jot dañuy dikk ak yéen ci émission boo xam ni dafay waxtaane tolluwaayu réew mi eh, ci wàllu politique ku wax réew mi nag ci wàllu politique di nga wax lépp li nga xam ni réew mi daanaka ànd na ak moom ci wàllu koomam ci wàllu tàggat yaramam ci wàllu wér yaramam loolu yëpp dafa làmboo ak tolluwaayu réew mi ci wàllu politique loolu nag moo sabab télévision Futur Média di ci ànd ak yéen en direct àllarba bu nekk tey ñu am si gan goo xam ni ci wàllu politique ràññee nañu ko ci lool euh, Mame mbay ñang lay wuyoo nekk jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tourisme ak loisir euh, ci biir réew mi moom la ñuy recevoir mbokk yi tey mu nekk itam comme ni ma ko waxee kàngam ci biir APR euh, ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. Papa maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ñaan yàlla euh, dëgëral suñu làmmiñ wax biñ fi wax yépp jariñ réew mi ci bu baax ci tamit euh, lépp luñ fi wax mu fi wax man mu ci dëgg hmm, jërëjëf mhm. alors Mame Mbaye ñi ngi la gis bu yàggul bariwul sax ci activité politique yi léegi luñ la ciy gis euh, mhm. lu bari mhm. waaye tout dernièrement ci génn bi nga xam ne président de la république génn na ko rawatina ci Kédougou ak ci Kaolack rawatina Kédougou gis nañu bokk nga ci boobu délégation absolument euh, mu nekk génn boo xam ni président de la république mi ngi koy def ci jamono boo xam ni daanaka mandaam jeex na fu mu dem daanaka mi ngi tàggoo itam mm-hmm. fu muy dem aussi mi ngi ànd ak le premier ministre ak le gouvernement mm-hmm. mais man sama question ci côté boobu mooy lu ko jiitu PM daf ko doon def mm-hmm. Amadou Ba mais mosuñu la ci gis ci wetu Amadou Ba Euh, ndax ñun ñoo gisul mm-hmm. wala yow yaa demul mm-hmm. lan moo ci am waaw jërëjëf Papa Nguej euh, xam nga laaj moom euh, ni nga koy laajee xëy na dafa dafa dafa am looy junj man duma PM dem na tournée effectivement secteur secteur département yi mu concerné yëpp daf leen yóbbaale man bi muy dem département bi muy am rencontre ak ñi ma concerné sama directeur de cabinet moo dem parce que dafa fekkoon ma nekk ñuy pré di préparer tournée président de la république loolu la. Mbaye xam nga loolu ñëpp ñi nga xam ne dañu xamoon sa diggante ak Amadou Ba ci ñagas ñagas ak ay wax ak ay def. Mm. loolu su fekkente ne lii dafa ñëw. dafa am loo xam ne mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënul nekk loo xam ne ni nga ko tontoo tontu bu gàtt boobu noonu noonu lañ koy jàppee. c'est-à-dire ndax la nekkoon ci seen diggante ci réeroo. Mhm. daf ci am ba tey. Mhm. wala amu ci. non non c'est que euh, bon defe naa fàttali xuloo xuloo la ca nit da ngay dépasser man defe naa. waaw ah, dépassé bokk na ci nag par exemple fu mu dem nga ànd ak moom aussi. ñu xam ni dépassé nga. non non non loolu ci wàllu politique après buñ ci bu ci wax ji eggee xam nga ni man ragaluma man ma mbay ku ma xam-xam ni bu ma d'accordul mhm. damay wax d'accorduma mhm. bi may mujjee def ak émission fii nii ci élection locale yi la nga am mbaax teg invité ma. Mhm. parce que bari woon na ay lënt-lënt. bi ma fi toogee tamit li ma gëm laa wax. sama àqulaay taala donc man lu ma d'accordul damay wax d'accorduma mhm. et dama koy assumé lu ma ci fekk ma nangu amul lënt-lënt sama diggante ak Amadou Ba amoon nañ ay jafe-jafe ñu dépassé ko moom ci boppam mu dem ci télé. Mhm. wax ni loolu amul. Mhm. te moom lim ci xam mooy est que man defuma dara. defe naa nag nit ki bu amee maqaama. ak euh, magu yëkkati boppam ca waxuma ko mu dem ba ci télé toog ñu laaj ko ci te ko ci doon laaj sax ñu ko ci doon tudd mu ni ko yow sa bopp xam nga ni lii amul mais defe naa kooku bu la loolu doyul mooy wax dëgg yàlla nag du problème boobu ngeen seqoon Mame Mbaye donc Amadou Ba mooy seen mais man ba léegi déggaguma fenn foo ne mooy sama mooy sa candidat yow déggaguma ko fenn foo ko wax mais mais jarul ma xam nga man wax waxi candidat yi guma ci te dinaa la wax li tax ca xëy na xam nga li tax. déet man kay xaw ma. waaw nopp xëy na dégg nga parce que yéen da ngeen di saytu. Mhm. man bi président Macky waxee ni bokkatul du dem boo seetloo damaa dellu gannaaw. waaw man damaa toogoon fii sa tele mhm. nga ni ma Macky day def troisième mandat man la Macky du def troisième mandat. bu ko mhm. dee def sax duma ko jàppale. loolu dëgg la ma dem ba ci biir. après Covid bi. ma bokk ci ñiy wax ni que ak lii réew mi di traversé. jàpp naa ni. loolu dëgg mën nañ xoolaat. considération boobu bu fekkee ni que yoon may na ko ko. yoon am nëbbatuwuma woon may liggéey pour Macky nekk candidat. deuxième quinquennat te teguma ko woon ci sama coobare bakkan. teguma ko woon ci sama leneen maa ngi ko tegoon rek ci bëgg réew mi. Mhm. donc man ci projet boobu laa doon liggéey te képp ku amoon beneen projet. te nekkoon ci ñun man ak yow jaamaarloo nañ mhm. nit ñi dañuy wax rek mais man ci biir majorité bi defe naa bokk naa ci ñi ëpp luñ jàppanteeg ñeneen parce que dama jàppoon ne que man projet bi ma gëm di ci liggéey ñoom xëy na ña ngay ruumandaat leneen ci suuf léegi nag nit ki boo préparé wul sa bopp ci dara. par exemple boo paree boo préparé wul ci jàppale Amadou Ba. déedéet soo parewul wul boo jàppale pare. Pape man boo ma bàyyee ma wax la di nga comprendre nee naa la benn projet laa amoon bi may duggaat sax ci gouvernement bi benn projet laa amoon mooy def sama kéemtulaay kàttan pour Macky Sall présenté wu. gagné mhm. parce que njariñu réew mi rek laa ci xool. Mhm. xooluma ci sama njariñ xëy na moom da koy lor moom Macky Sall ci boppam da koy lor parce que am na lu mu koy am na ay problème yu mu koy indil mais njariñu réew mi rek laa ci parce wax dëgg yàlla ci biir nag laa nekk. xam naa li ci biir xam naa lu ñu ñi xamul yëg naa lu ñu ñi yëgul damay gis lu ñu ñi dul gis nit ñi bokkuñu donc man ci loolu laa doon liggéey liggéeyu woon ci beneen plan. Mhm. ba bi président ne bokkul man mënoon naa wax ni candidat la fii la ñu woote ay local Benno Bokk Yaakaar samp candidat ma samp fële sama candidat. noo mujj nan nga mujj. assumé ñu gagné ma ah, ah. waaw waaw mais déedéet. ñu la xanaa doo la gagné ngay laajaat naan damay nekk. non non non soo soo mënul gagné laaj Sénégal. non c'est-à-dire loolu. Ah, loolu loolu moom. non mënoo loolu beneen wax naan damay gagné non laajaat moom xam nga moom. loolu moom kii ñu samp nii gagné wul woon Dakar. waaw woon sax bay gagné. waaw mais mais samp nañ ko te samp ñu la. waaw mais xaaral waaw moo tax moo tax ma wax la. Mhm. boo ma dégloo di nga comprendre donc bi ñu jéggee loolu. man nee naa damaa toog noppi parce que liggéeyuma ci beneen projet ñiy wax ni que candidat la ñu woon yëpp am naa ci ay xarit am naa ci ay wóllëre parce que pratiquement ñi waxoon ni que candidat la ñëpp ñi ci ëpp ñeent ñi bokk nañ gouvernement kenn ki nëbbuma ko sama xarit la c'est connu Ablaye c'est mon ami sama xarit la parce ci keppaaru ci saalu Macky Sall lañ xamante jàppante mu nekk inspecteur des impo man ma nekk contrôleur aérien aéroport ñuy dem leen te séq dem te séq jàmm ba yàlla indi li indi mais mosoo maa dégg ma wax ni que candidat bi lay jàppale. parce que dama gëm ci sama biir xol ñi ñu nekkoon ak ñun yëpp di préparer ci suuf dañoo waru am naa sañ-sañu nag ni man Macky lay àndal ñàkk ni que ku ci nekk seet si na ma am na ñu ma ci waxal parce que nit ki bu ngeen seqee jàmm mais ñi lay seet si ñëpp dañuy bëgg nga taxawaay bi nga amoon ci wetu Macky Sall nga am ko ci ñoom. te doo ko def yow. loolu mënatuma ko bu ma ko defee yow papa ngañ nga ni kon man du ma mbay bi laa xam. nit kay benn yoon. non man du ma wax loolu man li may jàpp mooy. bu fekkente ni non non boo ma dégloo di nga comprendre ma mbay. waaw taxawaay boobu la loolu boo ko amoon du ma jaaxal. parce que su mhm. fekkente ni président de la république. Mhm. moom nga téye woon ak sa ñaari loxo ba ñëpp gis ni ko téye. waaw dama bëgg ngeen teel ma diw mi. waaw mais da a téye man loolu laa jàpp. mais bu ma bu ma da bu ma d'accordul woon bu ma téyewul woon ci li mu wax kon du ma bokk ci yëf li ngay xalaat man ci gouvernement laa bokk gouvernement boobu majorité moo ko moom. majorité boobu dafa am candidat bu ma d'accordul woon du ma nekk ci gouvernement bi. jàppal loolu. d'accord loolu mooy bi njëkk. d'accord léegi taxawaay nag. la nga séq ak nit la. la nga jëflante ak nit la la nga wóolu ak nit la. léegi candidat nag. parce que non xaaral waaw déedéet. parce que seen candidat mooy seen candidat mooy ma la wax. nit ki moom mën ngeen am ay problème muy muy muy nit ki. ma mooy li ma la wax candidat nga xam ne seen candidat la. boo ma dégloo tuuti rek. kooku dafa taxawaay. boo ma laaj parce que da ngeen di ñoo xam ni. est bëgg la ñu bëgg. donc je que war nga am taxawaay buy tax ngeen gagné. boo ma dégloo rek di xam fi ñu jëm. ok. maa ngi lay déglu Macky Sall nommé na lu mat cent ministre ci diir bi mu nekkee ci réew mi fukki at ak ñaar ma bokk ci ma nekk fukki at ministre est que man taxawaay bi ma am yëpp cent ministre yëpp taxawaay boobu lañ amoon nangul ma ni ko du ah, benn du benn li tax du benn ku ci nekk la la tax taxaw ci wetam la man li ma tax a taxaw ci wetam du politique nee naa la ku may àtte kuy xool sama diggante ak président Macky la nga ci yër politique doo ko gis te bu fekkee politique rek nga ciy xool kon tàqali ko woon nañ bu yàgg taxawaay bi du politique ñi ëpp ci alliance pour la république ak Benno Bokk Yaakaar dañoo ñëw ñii moo leen dem jëli man Macky Sall musuma man maa ko fekk këram mu toog ma ne ko boo dee ut réew mi woo ma bokk naa ci leneen li nga nekk bokkuma yàlla dogal ma séq ak moom lu dul politique mhm. loolu mooy taxawaay bi ngay gis ci wetam ma mbay bëgg naa la déglu. léegi mais man aussi il faut nga xam benn affaire boobaak léegi yaa ngi wiiri wiiri ci li ma lay laaj. li ma lay laaj. ñuy wax lan moo fi indi ay problème mu Macky Sall politique c'est-à-dire li ma lay laaj. mooy engagement bi non non engagement bi tout à l'heure rek. mais mënta nekk non non mais loolu moo. loolu loolu loolu. loolu moo mënta nekk mais loolu moo logique. c'est logique ma mbay. lan moo logigul mooy ñu nekk ci ay presque pré campagne. Mhm. ngeen am candidat. nga nga ni non engagement bi nga amoon ci Macky Sall doo ko am ci Amadou Ba. mais loolu nit mënul comprendre loolu. mais de waaw li ma wax du nee naa la Macky Sall tànn téeméeri ministre. waaw ah. nee naa la laaj naa man bi ma amoon. moom la téeméer yëpp ni amul. amul sa taxawaay loolu loolu kenn waxatu. léegi ma yokkal la ci ni la tax loolu ci ba ngeen koy laaj ak bi ngeen ko yoree yëpp vraiment taxawaay bu am solo nga ci taxaw. waaw mais waaw léegi mais taxawaay boobu nag la ñu jàppoon ni. mais moom ngay taxawaat. soo ne ma woon c'est parce sama âge la peut-être soo ni ma woon peut sama âge la mën naa ko dégg mais principe la ni ma ko comprendre papa nit ñaa pas-pas. soo ni ma woon bi ma amoon bi ma koy def ak léegi peut-être papa ngañ loolu boo ma ko wax mën naa ko comprendre. boo dégluwul doo xam. ok nee naa la pas-pas ci nit. Mhm. ñaar la ngëm-ngëm ak yaakaar. ma wax la ni la bu fekkee da ngay xool sama diggante ak président Macky boo ci dee yër politique amu ci. mais kon kay bu demee da ngay dem yow. pare naa pour loolu. ah kon kay na leer. waaw ah, kon kay leer na. non loolu kay laa bëgg mais mais taxawaay taxawaay taxawaay bu doon taxawaay ah. politique waaw mais xaaral ma wax la. ok donc cest à bu demee yow da ngay dem. mais bu ma def bu ma àndul ak moom dem mooy kon man li ma doon wax du dëgg. ah d'accord. waaw ah, loolu loolu loolu li ngay wax nii nag c'est important c'est ça li li laa bëggoon a dégg loolu moo am loolu laa bëggoon a dégg non kay xam nga wax dafa am waaw man du ma wax de manière li tubaab yi di wax du ma wax de manière waaw damay wax sama yëg-yëg non loolu nga commencé nag waaw parabolique boobu nga commencé déedéet commencé non non non yaa ngi doog a yaa ngi doog a wax wax wax ji maanaam tey wax ji bu fekkee papa nga ba mu wax ji bu fekkee ni que mhm. yow xam nga ni man lu ma gëm dama koy wax ragaluma mhm. tiituma position bu ma am bu fekkee gëm naa ni que méngoo na ak sama ngëm-ngëm li ci ëpp doon diine bu ma ci dee dee dinaa ko def d'accord bu ma ko doon bu ma doon xeex Amadou Ba du def ñaari fan mhm. te kenn mënuma koo téye tere def mais sama ngëm-ngëm mooy man nit laa àndaloon jàpp naa ni def nañ li ñu war a def jàpp naa ni que réew mi tey la ko gën a soxla essayé naa. Mhm. am na ñeneen ñu ko xeex mais ñooñu nañ dem. d' accord léegi buy dem ngeen ànd dem. ba absolument d' accord alors dinañ ci dinañ ñëwaat ci ci ci wàll boobu parce que c' mhm. important. Mhm. alors monsieur le ministre man sax loolu laa waroon commencé mooy suñu confrères yi nga xam ni jàppalu nga leen tey ji ba ñu def leen ci kaso bi. te wax dëgg yàlla ak lu mën a xew. lu mën a xew. du ñu wax. mais jéggulu bi rek waroon na la doy yow en tant que ministre de la république man jàpp naa ni bu fekkente ni dañ la tooñ en tant que mambay wala lu mën a xew ci kilifteef mais réseaux sociaux yëpp boo gisee kenn ku nekk di wax je suis Allô Sénégal je présente mes excuses par mais loolu man loolu bi ma ko gisee nga foncé ci sa ci sa plainte mais man mënatuma comprendre quoi franchement waaw boo mënul comprendre boo laajtee ma ma expliquer la nga mm-hmm. comprendre ñi seetaan comprendre bi ci njëkk man jàppalewuma leen. non da nga porté plainte kay boo porté plainte kay nag. absolument wax dëgg yàlla waaw. léegi yow ñoom gis nga li ñu def wala gisoo ko. si gis naa ko. jàpp nga ni ko loolu lu jaadu la. non gis naa loolu mais man li ma gis li ma mujjee gis laa jàpp. waaw maa ngi jégalu laa jàpp waaw maa ngi jégalu bi après dinañ ci egg. waaw mais dama ni jàpp nga ni ñoom li ñu def noonu yoon la wala du yoon. non man xam nga. Papa Ngagne waaw non xam nga du nekk pour tontu la ci loolu. Papa Ngagne waaw non non xaaral boo boo ma dégloo naa ba bàyyi ma déglu ma rek di nga di nga comprendre def naa fukki at ak ñaar ci nguur bokk ci ñu jiitu bokk ci ñu taxaw jàppante fi ak ay nit yow wóor na la wóor yàlla ñi ñuy seetaan wóor na leen wóor yàlla. ni ko tooñ nañ ma tooñaat ma tooñaat ma du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon may jéggale li nga li nga jéggale moom bariwul ah si non non yow kay ma mbay yow tribunal bi moom moom presque yoon tool nga ko def sa à dire ci lépp ah xoolal par exemple affaire Prodac bi ñaata nga ci ñaata nit nga ci porter plainte mais bu ma ko njëkkee woon du egg fii nii. non non c'est-à-dire. loolu laa lay laaj dama ne affaire Prodac ñaata nit ñaata journaliste. ñaata ñaata nit. ba ci Ousmane Sonko. waaw cest à ñaata nit nga ci porter plainte ci affaire Prodac. yow mën nga nangu ñu lay ji. loo def waaw mais waxuma mën nga nangu. mais que nit papa nga nit. waaw buñ la defee dara. Mhm. buñ la tuumalee dara mu wóor la nu wóor yàlla defoo ko li yoon wax mooy da ngay dem ca yoon. waaw soo mënta baale ah. waaw su fekkee mënoo baale. waaw mais léegi est-ce est-ce que mën nga baal koo xam ni bu xëyee wax mu ubale àddina bi yëpp man awma njaboot. wax yu ñaaw yi ñu wax bu njëkk daan na am may jëlale man xëy naa ñu jël fi benn photo benn fi vidéo nit ni kii jabaru màmbay la mu yor ay xaalis réew mi yëpp xam ni que du dëgg ma dem di porter plainte nit woo ma ni ma jaru ko ma bàyyi ah. ba tey jii nii koo wax mun la jabaru Mame Mbaye la mhm. man xëy naa suba teel ci réseaux sociaux yi comme nii mu commencé ñu ni Mame Mbaye sàcc na vingt neuf milliards ma toog bàyyi muy continuer di continuer di continuer ba egg ci presse écrite di ko bind. te ñu xam journalist lan la war a def. ci réseaux sociaux yi egg nañ foo xam ni waaye sa téléphone ngay jël wax lu la neex donc bul wax ni que ci plainte nga dëkk. waaw d'accord mais mais donc bul wax ni que waxaaral rek bul wax ni que ci jàpp ñi ñi nga dëkk. Mhm. dañ ma tooñ. waaw bii yoon tooñu ñu ma man rek. Mhm. man homme politique laa man xam naa tàmm naa man li may seet du du lu ñu ñuy wax li may seet du lu ñu ñuy def sama diggante ak yàlla d'abord laay seet loolu laay jiital sama diggante ak yàlla sama borom beneen bi ci topp ma xool sama diggante ak ki ma dénk ci ñaari yoon yooyu laay teg sama xalaat sama digganteek yàlla bu ma ci mënee tëdd nelaw alhamdulilah ki ma dénk kóolute gi bu ma xoolee sama diggante moom mu ñoŋ alhamdulilah li ñeneen ñuy wax day yàgg rek mais dina mas a den alors yoon bii dañ cee tudd sa jabar no bu doon sama jabar du am problème tant que man ak sama jabar la rek moom yàlla may na ko mu xam jëkkëram ci li mu dugg li mu bokk donc moom préparé na boppam ci dégg lu ne musoo ko dégg mu wax musoo ko gis mu wax te pourtant kuñ xamoon la ci ginnaaw ku daan wax la ku daan jël kàddu la ku daan jël position citoyenne la. Mhm. mais bi mu sëyee ak man xam na ci liñ dugg mu décidé jàppale ma ci loolu di muñ. Mhm. mais bi yoon dañoo tudd jabaru jàmburu yeneen jabaru jàmburu. Mhm. kër googu du man rek maa fa takk jabar. ñeneen ñu ñu ciy tudd dañoo am ay jëkkër njëkk sëy sama jabar nekk ca bitim réew. ñu doon ay père de famille man man naa baale àqu jàmbur bu dee sama àq man mën naa ko def naa ko defaat ko amul problème mais keneen ki nga xam ni politiqueul tànnul dugg ci pëccxoo bi nekk France yor njabootam di liggéey di daan dooleem yor njabootam ci sutura nga ñëw xëy rek ni ko bàcc ci mbedd mi wax wax yu salte wax wax yu ñaaw ca tegoo ko ci dara parce que journaliste nga da ngay def émission papa ngañ loolu moo yàq réew mi. Mhm. d'accord alors lan nga ci jublu bi ngay porter plainte. mais li ma pour mu leer. non mais déedéet. mais wala non non parce que bu fekkee pour mu leer la. mais dara gën leer. waaw ñoo ngi jégalu dañoo juum. waaw mais man dama ni dara gën a leer loolu. waaw. tey fépp fu ñu ko waxoon xam nañ ni du dëgg. waaw loolu loolu kon jeex na. waaw mais nee naa la du man rek lañ tooñ. mais léegi est-ce d'accord. du yow rek la ñu tooñ. waaw est-ce que man mën naa baale àqu jàmbur. mais xam nga xam nga ñeneen ñi nga wax. tooñ ñu mënuma baale àqu jàmbur. mais ñooñu porté wuñ plainte yow yaa porté plainte Mame Mbaye lu la wóor ni man man la ci sama tur fés. plainte ya nekk France da nga xam ku ko déposé. plainte bi ñuy dépo bi ñuy waaj a déposé Angleterre du man maa ngi fi da nga xam ku koy ku ko déposé. Papa ngañ bu fekkee ni que yéen da ngeen di defendre nit mën a jël caméra am toog wax lu ko neex xëy dem tëdd tëdd nelaw li muy wax tegu ko ci dara lu dëgg yàq nit yàq ay mbokkam fii boo tuddee nit tuddoo nit ka rek am na jabar am na ay doom am na ay mbokk am na ay goro sa jabaram am na ay nijaay am na ay cousine am na ay leneen nga xëy réew mi yépp nga ubale ko ni lii moo am ci famille boobu après del defe ni da ngay jël koro rek ni baal ma àq man amu problème man tàmm naa loolu man jiiñ nañ fii vingt neuf milliards seen waa jooju taxaw ne nii yor na rapport ci këram bu ma téye te ñuy dem man tàmm naa loolu mais ki nga xam ni man ni ma tànne politique moom noonu la tànnee beddeeku ci politique yor njabootam ci sutura nga xëy ni ko màpp ci télé bi après nga bëgg ko jàllale ci perte profit loolu moo yàq réew mi lii ngeen di def nii c'est pas défendre la liberté c'est défendre le libertinage d'accord loolu du liberté Alors, libertinage la d'accord d'accord Mame Mbaye mhm. actuellement waaw ñaata nit lañ ci jàppagum mais xamuma dañu porté plainte cité ay nit man li ma porté li plant bi li ci nekk mat na vingt cinq du ñooñu rek mais am na ñu toog tey seen chaîne YouTube waaraate ba pare ni ki kii l'islam rey na ko ki mu ko séqal xaw ma lan dee na kii nit ku bon la ko ñooñu plainte bi mais bañ a bokk bañ boq bokk yéen réew mi li ko taal mooy wax yu mel nii diw sàcc la fekk diw deful dara ñu maslaa ko après nit ñi def dugal seen biir xol yi ñii ay sàcc la ah ñii dañuy daganal góor jigéen nit ñi teguñu ko fenn nit ñi di wax rek téye sa téléphone boo xëyee wax lu yàq nit ñi lu la neex après dem ñibbi buñ la jàppee ñu ne woy woy baal ko dafa am njaboot yow ki ngay yàq amul njaboot. Mm-hmm. après ñu ñu bëgg a dajaloo naa non ay liberté ak du liberté libertinage la libertinage c'est kon mais bu fekkee bu ñu nangoo lii ngeen di wax nii mooy ci ku nekk fajali boppam la jëm te buñ eggee ci fajali ku nekk di fajal sa bopp. ci ci ndumbelaan lañuy ñuy dem. ci ndumbelaan lañu dem nekkatuñ ci réew. Mhm. d'accord nit ku wàccu yoon. Mhm. yoon dafa war a dal sa kaw. d'accord alors Mame Mbaye li nga wax. Mhm. ñu bari mën nañ ko ñaawlu. parce que aussi du dañuy défendre loolu. ah si non non non attends dama lay expliquer. parce que boo taxawee nga ni ma dañ la baalu baalu woo. non loolu moom dama ciy persister. waaw dama jàpp ni. mais man mënu ma baal àqu jàmbur mais dama jàpp ni Mambay. Uh-huh. affaire bi bu eggee fii. waaw ñu nekk ay jeunes yoo xam ni au moins ñi ngi liggéey ci lu jëm ci wàllu liberté. Uh-huh. ak ak ak ak démocratie mën nañu wax. waaw bu fekkente ni juum nañu ci mën naa wax. Mm-hmm. parce que njuumte lay doon. Mm-hmm. nit mën nga jël benn information boo xam ne fi nga ko jëlee peut-être fiabulul wala leneen am ci mais loolu bu amee bi yow ba nga ba nga reconnaître ko. xam ni juum nga mais soo jégaloo nit ki. mu nekk kilifa ci biir réew mi. tey doo yow doo n'importe qui. a baale. man nee naa la tooñ non mën nga ba pare sàkku ñu ma man du ma sàkkul kenn ñu baal ko parce que man lépp lu may def dama koy natt ci ñaar mooy li ma la wax sama diggante ak sama boroom du ma wax lu ma wóorul sama taxawaay bi ngay wax sànq bokk na ci heure bu dara amee ma ñëw toog wax mosuñu maa plainte parce que du ma wax lu ma amul firnde du ma ko def lu wax ji dëgër dëgër dëgër compliqué balaa maa toog saytu naa ko saytuwaat ko te damay jàpp ni ni ma koy waxee ci tele bi noonu laa ko mën a waxee tribunal ca ëllëg si dinaa ko wax ci sama bàmmeel am na nag ñoo xam ne boobu intéressé wu mais man dama gëm ni que lii may wax nii bu fekkee ni que du dëgg. yàlla mën na xam ndax dëgg la wala du dëgg damay tricher mais dama ni du démocratie du liberté nga dugg ci kër jàmburu wax fa wax ju ñaaw jëmale woo ko du njuumte xam nga xalam mooy juum mooy comme ni ñuy waxtaane ni dara rëcc mais toog ni diw moo def lii xamoon naa ni lii dina ko dal àqu diwoo ko dal papa nga man nee nañ man ci problème ak waa jii nii nee nañ Mame Mbaye dafa feebar Mame yi dafa tëdd déggoo ma ma plainte kenn damay xëy liggéey si ñoo jàkkaarloo bureau ñi ma bëgg a gis laay gis ma nekk ci li ma nekk. feebar moom loo ci porté plainte. ah déedéet. ah non non moom. loo ci mais am na ñu dem ba ni Mame yi xaw ma mënatul wax. Ah, wala nga xëy war a dem tribunal ñu ne la noo mënta dox. ñoom nañ delloo si seen xel yi am réew kenn du ko teg ak jubadi mm-hmm. jubadi. mooy wax lu dul dëgg li gën a bon ci jubadi li gën a li gën a mag ci di mooy di ut dara teg ko ci ay nax ay sos ak ay pexe. d'accord alors am réew aussi loolu mujjantal bi am réew aussi ma ma ni mujjantal mujjantalu loolu mooy naax saay. d'accord mais am réew aussi. Mhm. war nañ ci egg. Mhm. Euh, ba du lu jóg rek ñu jàpp ni kaso da cee war a am àll wàll. Mhm. par exemple nit ki bu fekkente ni daf la tooñ. war ngeen mën a egg ci waxtaan. yaa ma tooñ li nga wax du dëgg bindal ni du dëgg ñëpp xam ne li nga wax du dëgg mu jeex waaw mais loolu bu amee mais mu saafaraw waaw nangu naa mais maa la tooñ waaw man maa la tooñ li ma la li ma waxal du dëgg waaw fa ma ko waxee woon ma dellu fa wax ni li ma la waxal du dëgg waaw mu jeex mais loolu bu dee man rek nangu naa ah non xam nga yaa ngi koy compliqué mais déedéet soo ci bëggee boole kenn déedéet non yaa ngi koy mais nee naa la dafa am yeneen ñaari borom njaboot ñett am dafa du du mambay ak jabaram rek la ñu wax wala du mambay ak benn jigéen bu nekk fee rek dañ ci tudd ay mais nee naa la man sama soxna dafa am ñaari rak yoo xam ne nekkuñu ci réew mi ñoo ko njëkk a sëy ñi ngi fële ak seen i jëkkër yu mel noonu bu amee yow xam nga réseaux sociaux yi li ñuy wax ku ci nekk day ku ci nekk day jéem a wax mais man du ma baale àqu ñooñu mënuma baale àqu jàmburu d'accord man bu dee man sama bopp aw nee naa la man sama bopp tàmm naa ko naqari na la de non mais non naqari na ma parce que oui ni ngay waxee non xam nga lu tax naqari na lu tax mu war la naqari te laalewuloo ci taqewoo ci waaw non xam lu tax non loo xam ni laalewuloo ci lu tax mu war la naqari à ce point li tax mu naqari ma mooy dama dem ci kër takk fa jabar waaw sama yeneen ñaari nawle takk fa jabar man ma nekk ci li ma nekk ñoom ñu nekk ci li ñu tànn nekk ci li ñu nekk yor seen njaboot ci sutura ak ci kumpa ñu jaare ci man def leen loo xam ni yàlla ak man maa tax te samay nawle lañ ñu tooñ leen parce que tout semplement man ak ñoom dañoo daje ci kër gi ñu takke soxna ñoom jiwuñu ma loolu wanuñu ma loolu te xëy na sax taxawa am taxawaay man bi ma ci am ñoom bëgguñu loolu. dañ la won ni am na lu leen ci naqari. ah amee dina leen may papa Ngagne kan mooy xëy gis ñuy tudd sa jabar ci ay réseaux sociaux ay xale yu ndaw toog di wax ay wax yu ñaaw ca nga am njaboot ñoom ñu nekk ak seen yeneen i nawle léegi nga bëgg jël ak loolu yëpp ah, après nga ni non mambay na leen baal. mambay baale na lu la lool même nit yooyu ñooy wax ni que mambay dafa feebar mambay àqu xaw ma tëral ak àqu masamba daluma àqu ma ba daluma sama àqu moo leen dal ñoom. keneen ki ngay laam-laamee naan bu ñu la waxee nga plainte mais attends waa ji moo taxaw ci tele tele yëpp tegu mu ni rapport bi bi mambay luubalee xaalis bi yor naa ko. waaw ñu dem tribunal andiw ko. Mhm. feneen fi ñu ko teg non Mame Mbaye day attaqué Ousmane Sonko. ñu condamné ko nga ni alhamdulilah. non waxuma. non si si non non non. ñu condamné ko nga ni alhamdulilah. am naa ci ndam affaire bi jeex na. ñu tegaat ci ay fan. nga daal di euh, euh, daal di kii daal di comment dirais-je encore. daal di euh, daal di bu ma wax loolu ma waxul te maa ngi nii toog. man kay li may wax ñeme naa ko. non ci sa ci sa page Facebook. ñëpp lire nañ li ngi ci wax man aw ma page Facebook aw ma page Instagram. kon ci Twitter non non li wax ni mani lu mën a xew yaa xam ci Twitter nga ko waxee yaa xam foo ko waxee Mame Mbaye li may wax ni dama ko mais dama lay wax ah non doo ma wax ni moom moo tax ni la réew mii ko teg ay foog naa foog aw ma page Facebook aw ma page Instagram ah, aw moo wax la non c'est pas c'est pas grave moom c'est très grave mais boo ma dégloo ma ah, wax la maa lay déglu boo ma dégloo ma expliqué ah, la am na ñu ubbi ministère bi day am page dafa am ñu ñuy dafa am ñu ñuy fay ñu koy administrer loolu ak man bokkul. non léegi munoo wax ni que de li nga bëgg a wax. waaw maa ko yóbbu. porté maa porté plainte. waaw parce que dafa toog ci télé bi. ni yor naa ko dañoo foog nekk li ñuy nëbb yëpp xamuñu sax fi ñuy jële kayit. ñu dem tribunal indiwul kayit. Mhm. beneen ñu dem beneen yoon mu demandé renvoi ñu dem beneen yoon. mu toog toogaat ci page live fam yooyu daan dinaa leen wan ni que ñii li ñuy wax lépp ay caaxaar lañ dossier yëpp maa ko yor mi ngi nii sama loxo ñu dem indiwul këyit moom moo tëjlu boppam moom moo tooñ boppam moom moo teg boppam li ko dal léegi nag man mais man man man damay liggéey léegi léegi nii ci wax ji du nee nga après bu sa grand bi paree buy dem daf daf may yóbbaale mais damay liggéey xam nga mënaguma jël retraite fa may liggéey ci li ma doon yëngu lay doon mais mënuma fa dem ak tuuma boo xam ni dañ naan non opposant boobu nekkoon Sénégal doon taal réew mi waxoon na ni ko da nga sàcc foog ma indi kayit ni leen non mais donte waxoon na ko may ma rek donte waxoon na ko donc yëf yi noonu lay doxe papa ngañ li dul dëgg du yoon. mooy nga toog fii di défendre koo xam ni toog na. xam nga da koy défendre xaaral. sénégalais bu koy défendre défendre dëgg. d'accord nit bu waxee dara da koy wóor. ku toog ci penc mi di wax. daf la war a wóor. kuy wax loo xamul matoo njiit. kuy wax lu dul dëgg matoo njiit. kuy wax euh, loo maîtriser wul mais waroo wax ci mbooloo. mais nag yéen presse bi li ngeen bëgg indi moo normalul da ngeen di jël médecin jël jël médecin di discuter ci médecine nga indi médecin ku def bac plus sept ci médecine nga teg koo xam ni plombier la nga bëgg ñu werante ci feebar. d'accord nit du wax ci lu mu xamul. journaliste du wax ci lu ko wóorul. loolu indi na fi ay dégâts ay bakkan rot nañ ci mais loolu waratu leen ko nangu. Et ça, c'est pas défendre la démocratie, c'est défendre le libertinage. Une personne qui se dispense de vérité, qui se dispense du droit et qui veut bu bëgg nekk ci penc mi di wax lu ko neex mais loolu bu ngeen ko nangoo man de du ma ko nangu. te defe naa buñ ko nangoo loolu mooy yàq réew mi. xam nga loolu. nangu woo ko. ba yóbbu nga ko ci yoon ba atte nañ ko. kon absolument waaw kon nangu jarul ngay nekk fii di ci wax ba di ci wax journaliste yi di dugg ci yeneen détails. mais ay journaliste la non d' accord mais bëgguma nga dugg xam nga lu ma lu ma bëgg. mais li may wax nii du ci ñoom ma dafa am lu ma bëgg leeral ko. Mhm. parce que dafa am benn affaire boo évacuer mhm. te mënuma ko comprendre. mooy ban mooy sa sa sa page. Mhm. Facebook la wala page bu mu mën a doon nga ni mhm. administré wuloo ko keneen moo koy administré alors que li liñ ci wax concerné wu la loolu nga bëgg a wax liñ ci wax liñ ci wax liñ ci wax après juste verdictu ce procès ak Ousmane ko mais loolu loolu loolu ki administrateur bi ci boppam wax na ko nee na moom mu bind moo tax man la il faut suivre l'actualité. non mais waxuma non xam nga waxuma il faut waxuma xam nga man man man. xam nga da nga ni ma man maa ko wax. non man la du man. Mambay Mambay. non da nga ma wax ni que man la man la du man Mambay. yow yow nga yaakaar ni a waxuma loolu de. waaw yow nga yaakaar ni. Uh-huh. man uh-huh. wala keneen. waaw communiqué bi daf uh-huh. koy concerner quand même. absolument c'est-à-dire man mënuma comprendre la page de Mame Mbaye am ku ci bind man ma naan ma Samba la wala ma Demba la. alors que yow mu nekk sa page. non loolu mënuma ko comprendre mais du parce que boo demee Facebook tapé di nga gis 45 pages yu Mame Mbaye Niang. boo demee xam nga ni ñëpp xam nañ ñi boobu mooy l'officiel. déedéet waaw déedéet bul wax loolu. non si non man awma page officielle nag moom laa la wax. c'est pas la page officielle boo demee Facebook tapé di nga gis cent comptes Facebook ñoo xam ni photo Mame Mbaye Niang la ñuy def boo demee Twitter tapé di nga gis 2500 comptes Twitter yoo xam ni photo Mame Mbaye Niang la ñuy def yow am na ñoo xam ni. ok il se réclame de toi. d' accord léegi yow bi nga bindee ko te mënoo ko tere. mais d' accord mhm. mais ko bindee daf la échappé. c' est à dire man li ma jaaxal mooy ak lu mën a xew. Mhm. su fekkente ni y' a quelqu' un koo xam ne mu ngi administrer sa page. waaw information bu toll noonu. Mhm. war na la ko communiquer. ba nga am sa avis. non mais nga doog ko publier. no non non non déjà Pape il faut que ñu remettre yëf yi à leur place bi ci njëkk mooy li ngay wax ni que loolu la bind je me réjouis de ce verdict nous rendons grâce à Dieu loolu la wax de. waaw pour ñu ko déggul maa ngi sant yàlla ci ci ci ci ci. acte bi setal na sama der ak yooyu quoi setal na sama der waay. loolu la ah, loolu la ñu wax mais loolu nag nee naa la loolu binduma ko. mais ñëpp jàpp ni procès bi jeex na. parce que loolu jeex na après verdict bi ñëw na. condamné nga si jeex na mais bu ñu jékki-jékkee dégat par exemple nga def appel mooy yow am nga beneen intention. Mhm. budul na affaire bi leer. intention beneen bi du dara lu dul barrer la route à Ousmane Sonko bañ nekk candidat de la candidat ci élection présidentielle yi parce que xam nga ni condamnation bi. su mhm. amee mais mënatul nekk candidat. te xanaa loolu nag lu mën a xew. papa nga ñëpp waroon nañ défendre loolu ba mu des yéen. Sénégal yëpp. pourquoi corporation yëpp waroon nañ défendre loolu ba mu des journaliste yi papa ngañ loolu dañ ci daan seen moroomu journaliste six mois. Mhm. avec sursis at ak genn wàll ci ginnaaw. daan ci télé daan ci rajo daan ci site internet ñoo ñëpp li leen daan six mois la mm-hmm. am déet mm-hmm. te ñooñu waxuñu ni que am nañ ay firnde o conditionnel sax la ñeen nit ñi bind moom mu toog ni man yor naa firnde yi génn créé ci boucan ba ñaari nit faatu ci ñu dem indiwul firnde yi mm-hmm. Papa Ngagne bu ñu défendre loolu. d'accord loolu libertinage la non xam nga li ngay jàppee défendre quelque chose. ak bëgg lu leer. n'a rien à voir nekkuñu fi pour défendre. benn benn cause. c'est-à-dire li nga xam ci xam-xam boobu nekk ci. Mhm. Euh, waru leen défendre nangam waru leen défendre. def. non boo bëggee mu leer da lu tax nga def lii. non non non non mais ak ni ma la koy posé. du la koy laajee. mais boo nee ma ne laaj naa la ko mooy Mm-hmm. yow appel bi. Mm-hmm. appel bi. waaw mais mais mënoon na ñàkk. mais pour lan muy ñàkk. mais pour pourquoi du ñàkk. déedéet mais euh, euh, euh, procès bi am na. Ah. gagné nga procès bi. waaw nee nañ li ñu wax amul. mais war nga ci am satisfaction mu jeex. déedéet su ko defee moom mu mën a am occasion. xam nga lu tax du ci am satisfaction. parce que bi procès bi jeexee moom daf ni ñii ay waxi caaxaan rek la ñuy wax. d'accord. du moom loolu la wax. d'accord léegi photo li ñun li ñuy def loolu ay caaxaan la. léegi photo li nga bëgg man ma ko fa. photo li ci saisie bi ak yi nga yi nga entamé woon. waaw mais yooyu yëpp c'est en cours mais nga toog di changer jéem a changer ay tour mais képp ku ci taq dinaa la topp képp ku taq. pour jël këram ak jël ay. papa ngañ man du ma wax di dellu gannaaw du ma wax di changer moom bu fekkee day foo man fowuma mais Mame nag yaa ngi bëgg a metti ah non non euh, xam nga non yaa ngi bëgg a metti quoi ay politique yu bokk génération bëgg a egg fii aussi nañ waxante dëgg aussi am na ci loo xam ni non man non xam nga nekk ma fi di joxe benn leçon de morale mais non non ñaata politicien non egg egg c'est-à-dire non mais xanaa waratoo toll nag di tirer ci ambulance war nga mën a dépasser foofu j'espère bien ban tirer ki nekk ci kaso bi nii waaw nga naan non damay dem jëli këram damay dem jëli nangamam damay def nangam mais il a c'est compliqué il a une dette dans cette histoire là ñetti bakkan dañ cee rot benn ndakaar benn Ziguinchor ci ay caaxaan yoo xam ni magum jëmm moo taxaw wax lu ko leeru lépp lu société bi laaj ak lu yoon laaj ni dafa war a tegu ci kawam du man maay dem di ko teggi yow xooloo ci ñi dee ci caaxaan yi xooloo ci ñi taal ñi taal seen alal ci ay caaxaan ci ay waxi mag yoo xam ni teguwul fen yow xooloo loolu lépp yow li nga gis mooy un politicien man Sénégal depuis kañ la am opposition ñaata nit ñoo ci nekk sama génération danga maa mës a dégg ma am problème ak kenn ki gën a virulent ci opposition bi Barthélémy Dias day toog ne la ma mbay sama xarit la. Hmm. man damay toog ma assumer ni sama xarit la. jatara dafay toog ni ma mbay sama xarit la bokkuñu position de. boo demee euh, Babacar Thioye ba dafay taxaw ni Mambay sama rakk la pourtant amul amuñu benn problème mais nit bu ñëwee bëgg a singulariser wu bëgg a. mais Mambay. départager wu dëgg pourtant xaritoo boobu ñi ngi ko doon wax sa diggante Ousmane Sonko. ba nga bëggoon militer ci partem mais loolu ñu ngi ko doon wax aussi mais loolu mooy moom ak waxi télé yi ñooyam. déet waay itam. boobu tamit porté woon naa boobu naa plainte de. ma mbay boobu te loolu mais loolu audio yaa ngi fi aussi. Oh, ban audio mais ñu dégg ko. papa ngañ. c'est que mais lan moo si am. xam nga li ci am mooy danga may conforter ci sama position bi ma nekk donc yow amoo droit ni ma baaleel parce que yooyu bi mu amee yi nga wax nii bi mu amee bu ma porté woon plant comme bii lay demee dañuy dem jàpp ni ràpp ci kaso bi wala ñu dem jàpp nga ni non aw ma preuve li ma wax dama ko sos kenn du sosal nit. ma mbay. ma mbay. waaw ngay wax nii mais ay nit non li ñu lay wax nii mais pourquoi porter woo plainte ci loolu aussi. mais kon moo tax ma ne la nag soit Papa Ngagne. non non non non soit tu xaaral nag defal ndànk man ñëwuma fii pour ping pong soit tu suis l'actualité wala tu suis pas l'actualité am na fii ku dem tribunal wut avocat ni dañ ma nax plaide de foi maa ngi PV kon foofu tamit erreur laa def waruma woon baale firnde ni ko waroo baale mooy lii ngay wax nii. kon parce que tey maa ngi toog ci tele Mame Mbaye non papa ngañ déedéet déglu ma tey maa ngi toog ci télé. Mhm. nga may laaj ay affaires yoo xam ni baale bii ngay wax moomu ko yóbbu. mooy kon buñ bëggee saafara jàngoro bi dëggantaan mooy lépp lu nit def na fay ba mu mat na ñu bàyyi maslaa. non maslaa maslaa ci suñu réalité la bokk. non bu fi bu fi bëgg a jéem a maslaa. non moom suñu ay culture la bokk. masla maslaa non maslaa. maslaa ci fukki nit dee. non maslaa. mas maslaa ci dix milliards tàkk. non maslaa ci ñu taal ay Auchan maslaa ci ñu paralyser réew mi maslaa ci ñu bëgg a toj réew mi. maslaa boobu bu fekkee maslaa boobu ngeen di digle man d'accorduma ci nekkuma ci te duma ci ànd. moo tax sa papa ñaan la ci njëkk nga bañ. sama papa fan la ma ñaan njëkk. mais loolu aussi da nga bëgg wax ni loolu amul vu ses ak Ousmane Sonko. waaw sam papa ban relation la am ak Ousmane Sonko. mais ci coalition politique loolu ñëpp xam nañ ko. mais moo tax man ni la papa Ngagne foog naa ak dégg naa mais waru leen ci àtte yow man maa ngi toog laaj nga ma man la amul amul gëmal ni ko amul. parce que man jomm naa di toog fii nii di wax. mais Mame Mbaye sa papa ñaanu la njëkk ci nga teg affaire Ousmane Sonko ci suuf plainte bi. li nga bëgg a wax bu fekk da nga bëgg a wax am na ñu ko seeti. pour mu wax ak man pour ñu teggi ko loolu am na. waaw man ak sama papa la ñu wax lu loolu. sama papa yar ma ci nii buñ la tuumalee wax la lu dëgg boo ci bàyyee sa dagan sa jar na bàyyi sa bakkan sama papa yar ma ci nii boo nekkee ci dëgg bu dee yow rek yaa ci wet dee ci. sama papa yar ma ci nii nga lépp musiba ak loraange buy jógee mënta jóge ci doomu aadama ca yàlla rek la mën a jóge ma yaroo ci loolu nga may wax wax yi nga may wax. nañu bàyyi naxante bi nañu bàyyi naxante bi ay sos yorulum réew ay sos moo taal réew mi papa ngañ ci fii la taal fi ñi ñi di toog mais di wax ji nit ñi ay sàcc di tam ñi ñi ay dëmm man toog naa fii ngay wax non yéen seen affaire yi leerul est-ce du ngeen dangalal góor jigéen mm-hmm. est-ce que ba tey jii nii ñuy wax mandaam jeex naam jeexul est-ce que mës ngaa dégg benn yoon ñu wax ni dañuy dagalal góor jigéen réew mi yépp ñu taal ko ci ay musiba ci ñi def musiba yooyu koo ci xool ci ginnaawam la muy ji ñi ñëpp moom ci loolu la nekk wax jii ñi ñi wax teg ko ci non ay xaw ma àq ma ko dal àq ma dembaa dal sama àq moo ko dal d'accord donc problème ba may jàppanteeg moom mm-hmm. ne naa leen tey lay egg ci daj dëpp kii ma song tey jii nii ak fii mu egg billaahi wallaahi taalaahi dootul doonati kii te boobaak léegi li may wax ci kàttanu yàlla mi ngi am. musumaa wax ci nga ko teg musumaa wax ci dëgg laa nga ko teg ci dëgg teg man du ma sosal nit lépp lu ma ko wax masa waxal moom yor naa firnde yi lépp lu ma ko mas a wax mas naa wax ni dañoo jubul ma ne ko yow yaa jubul ñu teg ci ñeenti fet affaire u 94 milliards yi génn mu taxaw assemblée national ni wéy affaire u dañuy sàcc xaalis bi bañ demee ba ci biir enregistrement yi ngay wax moom enregistrement moo génn këyit buñ signé ñu ni 12 pour cent la ci am. kii ngay wax ni que dama koo nen nen ma ko li ma wax ci moom lu am la moom moo la xool xool sénégalais yi ci ay bët xool ñu ñu ñëpp ni damaa dem suite boo ci di fa faju yow nga xam ni docteur amu fa sénégalais yi xam ni mocckat nekku fa ñun ñëpp ñu xam la fa am ñu ñu ni ko pat ay bakkan ci ñu taal réew mi ci loolu tey mu tuumaal ma ñu dem ci yoon indiwul tuuma bi ñi ñi bëgg wëlbati wax ji bëgg ma dëkkale moom fa nga xam ni moom moo fa demal boppam man dëkkuma foofu xame wuñ ma ci loolu doxewuma ci noonu. d'accord alors euh, appel bi. waaw waroon nañ ko enrôler ñi jàppoon le 26 ba le 27 ñu doon ko dégg. am non non appel bi condamné nañ ko. ok moom moo def moom moo def recours dem cour suprême. Mmh. cour samay avocat bind nañ cour suprême date bi mat na dañ ko war a enrôler bind nañ dinañ ah, mais annoncé woon nañ une date quand même ba ba ba presse bi xawoon ko. ñoom ñooy annoncé ay date parce que ñoom ñooy wax lu dul am le 26 boobu ñuy wax mais ñoom ñoo koy wax man mi dossier bi concerné bu ñu bu ñuy enrôler cour suprême dinaa ko yëg parce que ñoom ñoo nekk ci ay naxaate ñoom ñoo nekk ci ay pexe ñoom ñoo jël yoon teg fekk ko fii fekk. teg fii yoon teg fii dëgg nekk ci ay pexe di jéem a nax sénégalais yi mhm. date bi le 10 bi mooy date butoir bi ñëpp déposé nañ le dossier est en ak à tout moment mën nañ ko juger suba cour suprême mën na ko enrôler le 10 novembre bi ma ni le 10 novembre bi passé ok moo nekkoon date limite procureur ak parquet man ak moom ak ñëpp déposé nañ pourtant loolu lañ ni kenn mosu ko gis de. waaw dossier bu ne gis nañ ko fi mais bu gaawee noonu kenn mosu ko gis. waaw déedéet parce que papa ngañ diffamation ak délit yooyu ci deux mois trois mois lañ koy jugé du crime assise mooy dem ay six ans sept ans huit ans mais nit ñi dañuy wax ci luñ xamul nee naa la pap ñii dañoo jël droit teg nii jël dëgg teg nii nekk ci ay pexe li ñuy wax dara amu ci dara dara dara dara dara amu ci ba ci coow lii ñu indi ci ay retiré nañ ko ci fichier beeg dañoo jël droit teg nee nekk ci li leen neex lii ko dal lii lépp ki ko ko teg mooy ki ne ko woon bul dem ci procès yi bul wuy ju yoon li ko dal lii yépp moom moo ko def moom moo yëkkati boppam dem ci barab moom moo njog toog ci kanamu sénégalais yi ni leen Mame ñaa sàcc la yor naa kayit ba ci cappaandaw gi fii ba ilaa yow mi diini wallahi azim du andi kayit parce que lu amul nit mënu ko andi ñu jël loolu lépp ubale ji ñu sàcc tam ñu dëmm ni ay franc-maçon lañ gëmuñu yàlla te ñi koy wax te di woote woo ci yàlla ajjuma dañuy taxaw ci mimbar di fàttali nit ñi ay addis di woo nit ñi ci yàlla mm-hmm. nga ni ñii dañuy défendre góor jigéen yow ka nga topp ka ko jiiñ lam ko jiiñ lu mel noonu la mais nañ delloo si xel yi ay bakkanu doomu aadama dañ ci gaadu seen pexe yépp fi mu nekk mooy à partir du 17 ak mois de décembre ñu taal réew mi créer condition yi. non non mais ça mi ngi non mi ngi dépendre mi ngi dépendre aussi ci lan mooy lan mooy euh, lan mooy nekk décision CEDEAO. mais le 17 par exemple tey bu fekkente ni euh, CEDEAO dañu décider. jox dëgg Ousmane Sonko ci li ay avocat demandé ci ñu réintégré ko ci fichier électoral bi mu éligible nekk électeur mais bu boobaa su fekkee loolu la wax DGE wala ñeneen ni loolu duñ ko def mais loolu itam beneen mbir la Papa Ngagne xam nga fichier parce que tey DG li ñu wax mooy boobu ba léegi amuñu dara. lu leen war a mën a lu leen war a mën a permettre. ñu jox ay fiche de parrainage. Ousmane Sonko mais bu fekkente ni CEDEAO. Mhm. mais wax na ko mais je pense que war nañu mën a jël décision bu mel noonu nag jox ay fiche de parrainage mu doxal. léegi dinaa la dina dinaa wax ak suñu mbokk sénégalais yi lii lépp ay nax la yëfi ni mu demee ak ni mu tëddee ci olof bu simple mooy waa ji dañ ko condamné. code électoral bi. ban condamnation ngay wax. ma ni waa ji dañ ko condamné. mais ci ban condamnation ngay wax contumace déglul rek. ok boo mu bàyyi naa wax. waa jii tribunal da ko condamné ca demul ñu ñëpp ñu yéen Sénégal yéen ñëpp ngeen gis ni ko procès ba ba muy am moom demul parce que nee na du dem ci tribunal le juge bi condamné ko deux ans par contumace élection bu dee waaj a am. élection yi nekk le quatre février code électoral daf ni le 10 juillet dafa am période consolidation consolidation mooy dañuy jël fichier bi ñu teg ko ñu génne ñi faatu ñi génne ñi cha ñi changé ñu bind leen ñi condamné ñu génn leen ministre de la justice mooy jël kayit bind ministre de l'intérieur ni ko at mii ñii lañ fi condamné définitivement ñii lañ fi condamné provisoirement pro lii moo fi nekk ñii lañ condamné contumace le 10 juillet Sénégal yépp ñi ngi fàttaliku ku ci nekk fàttalikul fii waa ji nekkoon ma nga woon këram ca fekk na ñu juge ko ba taf ko mu nekk ci état de contumace nit ñi di werante ci naan ndax day dem joxe boppam ak ndax du joxe boppam le 10 juillet ñu tëj fichier bi nettoyé fichier bi dindi ñi dee dindi ñi condamné moment boobu moom mi ngi ci contumace direction générale des élections amul droit inscrit Mambay xam nga contumace boobu itam. li ñu ci mën wax bari na. lan nga ci mën wax li ñu ci mën a wax bari na dégg ngay avocat am li ñu ci wax. te lu leer la itam. lan nekk mënuñu am ñaari Ousmane Sonko. mënuñu am ñaari Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu nekk këram ak Sonko bu ñu jàpp. cest loolu li mu ci bëgg a expliquer mooy. Hmm. contumace bu ñu la xasee contumace bu la xasee jàpp. ba pare dañu war a attewaat atte bi. waaw léegi ñoom ñu ne jàpp nañu ko. mais jàppuñu ko ci loolu. yow nga li contumace lañ ko atte nangu na loolu noo ko mën a noo ko mën a expliquer. waaw mais léegi est-ce que le 10 juillet jàppoon nañ Ousmane Sonko wala jàppuñu Ousmane Sonko. non boobu jàppuñu ko. waaw ah, kon biñ ko jàppulee fekk ñu jugé ko état boobu ban état la. mais ñu ko jàppee nag. ci lañ ko war a attewaat déedéet déglu ma xaaral papa nga nañ dégloo. te moom ba mu nekkee euh, Sébikotane. bind na ni man joxe naa suma bopp nangu naa loolu nañ ma attewaat. est-ce que jàpp nga date mais xam nga ni def na loolu. Ah. mais déglu ma rek. déglu ma li mu njëkk a def acte bi mu njëkk a posé. déglu ma mooy bind. la wax ñaari pàcc. waaw dinaa la wax ci bi njëkk dinaa ni la bu fekkee ay avocam ngay déglu bu leen déglooti parce que ñoo ñooñu defuñu droit ay militant lañ naa la wax ñaari léegi ñu dellu si ci wax ak sénégalais yi le juillet Ousmane sonk mi ngi woon këram jàppaguñ ko le 10 juillet. mooy datu consolidation fichier bi le 10 juillet est-ce que Ousmane Sonko mi ngi woon en contumace ou pas contumace mooy ñu àtte la taf ko. def li ñu ci juillet fekk na mu nekk ko mu nekk ñu àtte ko ba pare. ñu àtte ko ba pare ba condamné ko. mu nekk en état de contumace nekk këram. léegi ñu jàpp ko. waa déedéet àtte leneen lu dul loolu. waa déedéet xaaral rek. ñu jàppe ko ci loolu leneen lu dul contumace boobu. ma boo eggee foofu. waaw d'accord nga ni que le 10 juillet mi ngi woon këram. fekk na ñu àtte ko fekk na ñu taf ko mu nekk état de contumace le 10 juillet boobu mooy date limite bu ñu war a consolider fichier bi le 10 juillet boobu le DGSE. de direction e. générale waaw e. direction générale des élections mhm. le 10 juillet boobu lay jël fichier bi ñu teg ko ñu ni certificat de décès yi lañ jot. ñii dañ leen di génne fichier bi ñii demandé nañ ñu changé bureau de vote changé nañ leen ñii dañ leen a condamné génne nañ leen fichier bi le 10 juillet boobu bu paasee xam nga lan moo mën a ubbiwaat fichier bi révision exceptionnelle décret présidentiel DGSE mënul bind nit ci fichier mën na la cee dindi comme noonu ma la wax mais munu ci dugal pour nit inscrire mais kon su ma la comprendre. moom décision bi Sabassi jël le juge Ziguinchor. elle n'est pas exécutable. bu fekkee code décision bi bu fekkee code électoral bi bi Sénat jël mais Sénat amul décision. li ñuy xaar par exemple. amul non non Sénat amul décision. mais kon lu ko ci dugal. dama lay jox exemple bu leer Karim Wade kañ la inscrire. Euh, yàgg na. déedéet. bu Qatar bi nga may xoolee mu inscription bi ñu defoon. inscription bi mujj bi dugal Karim Wade. Ah ci inscription loolu loolu Turquie def na ko Turquie way ah waaw ah, mais loolu yàgg na ñaata inscription moo amoon ci diggante bi lu tax ñëwul Sénégal inscrit ci commission lay dem parce que commission mooy inscrire commission pour mu mën la inscrire dafa am date bu ñuy inscrire daj bu ñuy tëj daj ba ñuy inscrire weesu na avocats yi dañ lay nax dañuy nax sénégalais yi ñoom ñoo ko waxoon bul dem ñoom xam nañ ni que li ñuy def du droit dem Saint-Louis dem Cour suprême ak dem feneen boobu bu jàllee man ak moom li ñu àtte bu génnee juróomi at Ousmane Sonko mënta bokk ci ay élection même bu inscription amaatee bu demee duñ ko inscrire parce que dañ ko daan après ñu bëgg a nit ñi. léegi Mame loolu nga bëgg ba pare am loolu nga bëgg yow. mais jàmm day am non non mais attends cest mu am ba pare te nit ñi duñu génn xeex loolu loolu nga xalaat yow. mais ku génn xeex nga xam ni. yaa ngi xeex mais loolu nga xalaat yow par exemple tey. ñoom la àndal depuis des années. pare seen seen seen seen élection présidentielle. waaw président préparer seen candidature. seen plan A ba Z nekk Ousmane Sonko. nga dégg ko xam ko. mais nga ni ma non pare nañu ci. waaw même CEDEAO bu joxoon décision ak lu mën a xew Ousmane Sonko mënul bokk ci élection yi. waaw man sama condamnation aussi bu daanoo. fii ba 5 ans Ousmane Sonko mënatul nekk ci benn élection. loolu mooy yoon. mais loolu yaakaar nga loolu mën na am ci réew mi pare pare jàmm am ci réew mi. loolu yaakaar nga yow ci biir yaakaar yow da ngaa defe ne ni que parce que moom la wala keneen la yow yaa yow jàpp nga ni que dañoo war a def lu dul dëgg pour moom mu bokk parce que moom la. non amul benn sénégalais bu jar loolu. non ci dëkk bi ci jàmm papa ngañ may ma ma eggale ma mbay may ma ma eggale may ma ma eggale ñaa sa image yaa ngi fii ci assemblée nationale ngay ràkk waaw li ma lay wax nii absolument ngay ràkk di xataraayu may ràkk di xataraayu ci manifestation absolument mais loolu bu fekkente ni da nga ko bëgg bañal bañal nit ñi mais fan nga ko teg mais man ci dëgg laa ko teg non waxu non mais yow yow sa dëgg la yow déedéet non si ci dëgg bu Sénégal yëpp bokk non non non sa dëgg la yow déedéet non sa dëgg la mais sama dëgg amul ak sa dëgg non si dëgg moo am ak lu dul dëgg papa ngañ dafa mënoo mënoo par exemple boo dégluwul doo xam mënoo boo dégluwul mënoo bi xeex boo dégluwul nga xeex boo dégluwul ba jël réew mi waaw ñi war a xeex ngeen leen kenn du fi xeexee mais mais man waxuma kenn du xeex non attends loolu nga wax kay déedéet xeex kay dafa am anil dafa am nu ñuy xeexe ñun biñ daan xeex dañu daan génn di tiire ci booy yi ñuy dee ñun xeex nañ ba jëli fi Ablaye Wade langaamu nañ ci giri yooyu ngay wax taxaw nit faatuwu ci alalu jàmburu loruwu ci. wala boog non non faatu moom am na ci. waaw ah, ah. mais waxal rek parce que aussi. nit ñi dañuy dégg ah. nga ne faatu la. non ñaata nit ñoo ci faatu. 23 juin. non non waxuma 23 juin. waaw période ele euh, période boobu laa lay expliquer nii. période ñoom Mamadou Diop beeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw mais mais mais defal ndànk déedéet Macky Sall avant muy jël pouvoir ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan est-ce que est nii on parle day 60 bakkan parce que kii nee na leen moom day dem faju ji fële ñoo ñu xam ni fee duñ fa faju kenn du fa fajaate kuy fajaate nekku fa mais kooku ku ko def yaa ngi teg sa bopp ci ay caaxaan génn jël kagule dem taal kër jàmbur taal alalu jàmbur jël kopp motamol def taal ay bus transport yàq alalu ñi ñi toj alalu ñi ñi teg ñi ñi ci fitna après nga defe ne ñi ñi dinañ leen bàyyi am ci yéen sax ñenn ñuy wax naan ay détenu politique fii détenu politique daf fi am kii li mu def tegu ko tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon ci coobare bakkanam ak ay nit yoo xam ne yaakaar nañ ne que mën nañ nit ñoo xam ne dañoo jël dëgg teg fee jël yoon teg fee nekk ci li leen neex ngeen def nit ñi ñi dinañ toog di leen seetaan loolu ku ko yaakaar yaa ngi nax sa bopp kenn du la seetaan kenn du la seetaan de lii ñuy waaj xam nañ ko lii ñu bëgg a def xam nañ ko taxawaay bi ñu war dinañ ko ah, taxaw mais ñun tamit nëbbatu ah, non ñoom nëbbuñu ko de ñun tamit nëbbatu ñoom ñi ngi wax ñi ngi ñoom mais segam ñun ñoo nekk ci yoon nekk ah, ci dëgg mais ñun ñu waxantum ñoo ñoom ñi décidé wàcc yoon euh, ñoom ñi décidé indi fitna ñoo ñoom nëbbatuwul waxantuma laa ñi ñi nekk ci dëgg nekk yoon non ma mbay loolu bul danga ma la koy wax nga koy bañ sa dëgg ngay wax ñoom jàpp nañu ne li ñu nekk mooy seen dëgg li ñu nekk ñoom jàpp nañu ne mooy seen dëgg parce que jàpp nañu ne pouvoir ngeen fi yor boo xam ni ku fi bëgg a nekk candidat ñu faagaagal ko def nañ ko Khalifa Sall def nañ ko Karim Wade bëgg nañ ko def Ousmane Sonko ñoom duñ ko nangu lan lañ ko def moom waaw ah, mais liñ ko def mais wax ma non xoolal waaw déedéet on va répondre mm. cas par cas nan lañ ko faagaagale moom lan lañ ko def pour faagaagal ko non non nañ commencé rek ci yow waaw ci man waaw ci man waaw ci yow ci li ngay bañ waaw nga porté ko plainte ci diffamation waaw ñu dem ci yoon ñu atte ko waaw condamnation bi terewu ko nekk électeur te terewu koo nekk candidat noo attends waaw nga def ci appel teg ko ci waaw mais loolu loolu loolu lan lan lan lay nurul waa léegi tribunal ñaata yoon loolu boobu rek la ñuy wax waaw mais déglul moom mu laa lay tontu tribunal du dañ ne bu ñu la àttee benn yoon première instance du deuxième instance am na waaw. deuxième instance bokkul tribunal waaw bo ci tribunal la bokk recours bii mu def cour suprême mhm. bokkul tribunal ci tribunal la bokk ñett yooyu ñooy dajaloo dëgg sa wa feeñ ñett yooyu ñooy dajaloo dëgg soog a am léegi bu fekkee ni que est-ce que ba muy toog di wax ni que magum jëmm toog jàkkaarloog sénégalais yépp papa nga yenn yi war ma sax nanguwu ko kenn waru ko defaan ci loolu moom moo toog ci làmmiñu boppam toog ak ñeneen mu ni man lii yor naa ko man ma ni ko lii amul mu génnaat ni dañuy caaxaan man yor naa ko. Ah, mais internet bi aussi. parce que loolu la expliqué à la fin te loolu itam nit ñu gis nañ ko. Papa Ngagne waaw. kii lan mooy liggéeyam lan la jàng la wax inspecteur des impôts liggéey na fukki at ak juróom dépend ci benn service saytu ay kayit nee na loolu la jàng ñaara mënta nekk ñaara mën a nekk njàngam bënnul mokkalul walla ci yaama neex la ko teg. kayit bu kenn xamul kayit bi nii bu ma ko jëloon lii du ay bind la ma ni TFM dañoo leb Bougane cent milliards Bougane gannaaw suba da koy nangu ci kayit bi lañ ko bind est-ce que bu ma ko yóbbee tribunal dëgg la te yow saytu nekk sa liggéey nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi nit ñi ñuy nax njëkkewu ko ci loolu li ma gën a metti nee naa la kii daf ñu xool ñun ñëpp ci ay bët toog jàkkaarloog ñun ni damaa dem fee pour di fa faju ñun ñëpp ñu xam ni foofu kenn du fa faju kii dañoo xool ba ñu neex mu ñun diw mii moo sàcc 96 milliards ndekete moom moom lu mu bëggoon a foqati la kii daf ñoo xool ba ñu neex mu ñu seen pétrole sàcc nañ ko li muy wax jàngu ko xamu ko du ci jaar-jaaram li muy wax méngoowul ak yoon méngoowul ak njub yéen ngeen nangu nit ñi di continuer di wax ci koo xam ni loolu naan dëkk bi dëkk yi dëkk bi dara du fi am ci kàttanu yàlla parce que dëgg mooy mujj ku nekk ci ay caaxaan ci nax ngay jëm. dara dara du fi am loolu mooy jàmmi réew mi loolu la ñuy ñaan. waaw mais mu lalu lépp ci dëgg aussi. kuy jéem a sabab leneen nag ma kuy jéem a sabab leneen nag yoon mooy lii nekk di am yoon moo boo defee lii. doo bokk ci lii boo defee lii doo bokk ci lii tribunal yoon moo ni boo waxalee sa nawle loo amul firnde lii lañ lay daan moom lañ ko daan du guléet nee naa la yéen saw naataango daan nañ leen loolu moom ñu teg ko ko ñu ni dañ koy faagaagal mais nañ teg wax ji ci dëgg kum neex nag nga ni sama xol lii maa man maa bëgg kii mais ki nga bëgg nekkul ci yoon ki nga bëgg li muy wax tegu ko ci xam-xam ki nga wax li nga bëgg li muy li muy wax tegu ko ci dëgg ki nga bëgg li muy wax mais méngoowul ak li am ñeneen ñi muy waxal dañoo yor njaboot comme moom bëgg a bokk comme moom bëgg am ay ambition bëgg jiite réew mi comme moom nga dajale say nit dajale say bëgg say say boroomi nit mais dugal réew mi ci guuta goo xam ne ni ngay ni ngay waxe kii waaw considérel na lu mën a xew que ni réalité politique la c'est-à-dire phénomène politique la. mais mais identité remarquable politique bu leer la. te loolu loo ko bañ bañ nangul ko ko. mais mais bu non non loo ko bañ bañ nangul ko loolu. mais c'est-à-dire ni ngay waxi kii kii. c'est-à-dire pour pour pour simplifier ko. mais dama ni lu mën a xew. nangul ko lii ma lay wax nii. waaw réalité politique man man du ma phénomène politique man du ma en cause. waaw du ma ay ak ndax réalité politique la mais kooku. bu nekkul woon réalité politique pexe yi mu nas ba dugal réew mi ci lii du ko mën a def am na ñu ko topp am na ñu ko doon déglu am na ñu koy déglu ba léegi am na ñu mu àndal mais ci liñ ànd du dëgg ci liñ ànd du du njub ci liñ ànd du du ci lu baax ca firnde yi mooy yii ma lay wax nii. d'accord d'accord waxuma du réalité politique de. d'accord réalité politique la parce que taxaw na wax ay nit. ñii mënuñu ay sàcc lañ ba ñu jox ko ay maire mais nit ñi nañ dem xool maire yañ gañe woon taxaw nañ di wax di wax di wax ci ay pexe ci ay pexe ak lu dul dëgg ba ñu jox leen pratiquement moitié wu assemblée nationale lañu ñu waxoon lépp nii di te fan la toll taxaw na di wax di wax di wax ba ay xale yaakaar ni que dañ koy néewal doole ñu génn seen bakkan rocci taxaw na di wax di wax di wax ba ay yeneen force yu nekk ci bitim réew yoo xam ni seen yéene duggoon ci réew mi la amoon ñu jaar ñu jaar ci moom loolu lañ ko accusé nii mu war cee setal boppam mais ñi fi faatu du lu ñu fàtte. ay attentat ndax am na fi mais ay nit ay xale dee bërki démb Bruxelles mais ñetti ñaari nit lañ génn dóor balu pistolet àddina bi yëpp mm-hmm. ubale. tout à mbaaw gi xaw ma Kër Massa ak ay suédois mbaaw gi lañu taal. Mm-hmm. car rapide ay nit lakk ci ñi ñi naan complot la. yaraax yaraax. mais nañ bàyyi caaxaan yi. nañu waxante dëgg réew mi am na loo xam ni amoon na fi waratul am ak nguur gu mënti ñëw ñett yi dafa war a deñ fonctionnaire buy politique dafa war a deñ ci réew mi. ah bon oui njàngatu fukki at ci wetu njiitu réew. bu Amadou Ba nekkee président de compliqué de. xaw ma <laughs> mais dama ni fonctionnaire bu nekk dëgg la ñuy wax nga ni fonctionnaire buy politique dafa war a jóge. ma ni ma buy politique dafa war a jóge jàngalekat buy politique waratul am parce que li ñuy lor mu ëpp fuuf seen njariñ ci biir politique politique ku décider di ko def da ngay génn administration bi presse bi nañ xoolaat cahier de charge yi ko tënk. parce que ci ñett yooyu la réew mi yàqu nit nekk fonctionnaire toog foo am signature di fa def lu sudul noonu pour imposer wu sa bopp fa nga dëkk pour am pouvoir politique du ak njub jàngalekat di dugal ci bopp xale yi say conviction politique ak di génne parce que loolu la ñu dund ñu yàq njàngu xale yi fonctionnaires yi moomuñu réew mi cent quatre-vingt mille personne la état du Sénégal di fay loolu mooy nombre fonctionnaire bi ñun dix huit million lañ donc boo jëlee cent quatre vingt mille yi on fait même pas zéro virgule un pour cent ñun la ñuy fay cent quatre vingt mille yooyu la ñuy fay moitié wu recette Sénégal amuñu droit cent quatre vingt mille séddoo réew mi bàyyi dix huit millions yi changement yooyu dina metti mais faw ñu def ko ñu bàyyi wax lu dul dëgg. ay non tubaab yi ñooy jël suñu alal kenn jëlul suñu alal kenn jëlul suñu alal man ki ma xam ànd ak moom démb laa dégg benn déclaration tubaab am na ñu koy diffuser di ko jéem a tourner ñu ni noo ñoom perte nañ Afrique yëpp Sénégal moo leen dese woon ak Abidjan du mooyu nañ leen parce que président Macky njëriñu réew mi la doon xool et firnde bi mooy tey àdduna bi amul kenn koo xam ni bëgg ngaa lijjanti. lu dëgg ak lu jub ca doo ko woo fii àdduna bi toll moom mooy wax ak Poutine di wax ak ñële loolu taxawaay la am na ay prise de position yu fi am mu ni ñun duñu ñu bokk fii duñu ñu bokk fee parce que loolu mooy njariñu réew mi mhm. kooku ku tubaab yi jiital doo ko def boole nañ ñoo këru diine yi. bu nangoo diriger 4 tubaab yi duñ ko jiite. nga ni bu nangoo jiite 4P euh, boobu. ñu koy yaakaaruloo ni pour tubaab bi nañ ko diriger. déedéet dinañ ko diriger bu boobu déedéet. ah mais lan ngay ci. parce que loolu moom bu ko jiitee njariñu tubaab yi la parce que moom moo war mën a wax ak ñëpp te ñëpp xam nañ ni que àdduna bi fi mu jëm affaire environnement la te man bokk naa ci ne naan ko loo fay def man dama gëm ni que réew mi tey la ko gën a soxla papa ngañ na réew mi nañ bàyyi xel xam nga période Covid bi fii laa toog. Mm-hmm. nga ni ma sa ñëw na man la njariñu réew mi la ànduma ak moom te buñ ko jiitalee it ànduma moom mais ku xam njariñu réew mi la parce que lii ñu nar a traversé bu ñu booloowul musiba dina am ñëpp toog seen kër réew mi dëkk yëpp tàkk ba mu des suñu bos loolu bokkoon na ci li tax fii réew mi jëm ci wàllu sécurité ni ci nit ñi bàyyi xel intérieur wala extérieur. intérieur ak extérieur lii fi mujjee am wane na ni que am na lu nekk ci biti lu bëgg a yàq réew mi papa ngañ am réew mënta am cyber attaque. Mhm. mais loolu loolu loolu loolu loolu dañ koy jiiñ ñi ànd ak yéen ah ni ñoo fi dugal li bëgg a taal réew mi aussi. non bari na ñuy wax loolu aussi. mais moo am intérêt réew mi tàkk. ñun kay lépp lu ñu mën a def pour fay ak jaamaarloog ñi bëgg a taal réew mi def nañ ko ñooñu njëkkee wuñ ko ci réew mi réew yi nekk suñu wet yi yëpp xëy na li ma bokk ci gouvernement moo tax mënuma tudd mais bu fekkee ni que sénégalais yi bëgg nañ dunde comme réew yi nekk ci biti ni ñuy dunde mais ñun bëgguñu loolu manifestation am ay nit kabulewu ñuy rey xam nga ak loo contre contre contre contre fii policier bi day wàcc ñibbi géejawaay kii ñibbi ngor kii ñibbi yoof yàlla suturaal nañu ba yenn problème yi amuñu ko. mais mais ñi ñi yor fital yi di rey kàggule wu. waaw wala par exemple solu ñu tenue. waaw mais dañ leen di gis ci oto policier yi. lañ leen di gis police dafa am ñaar non mais xaaral ma wax la moo tax ma ni la nañ wax rek ca yàlla tax police dafa am ñaar. Ah. mas nga gis agent dig bu sol tenue mas nga gis agent bi bu sol tenue amul parce que loolu moo yàgg am. waaw mais li wax li ma bëgg a yor fital aussi teg ci. waaw. di tirer aussi teg ci. waaw li ma bëgg a wax mooy lu mësul am ci réew mi am na fi lu masul gis ci réew mi gis nañ ko fi. mooy lii may wax ni ci mi ngi am ci période boo xam ni. ñu bari yaakaaruñ ko woon yàlla bu mu fi amaat mais gëm naa ni jël nañ matukaay yëpp pour mu ko bañ a am mais na nit ñi bàyyi xel ci loolu. Mm-hmm. na nit ñi bàyyi xel bu baax ci aspect sécuritaire yi Sénégal dafa commencé doon viser wu ñu bari ci li tax ba léegi tojogul yenn force yi dóoranteeguñ fi wallahi azim ci li ma xam c'est parce que waa ji moo fi nekk ci day wax ak ñëpp tant que mi ngi fi am na yoo xam ne du am. gën na nag ci àpp boo xam ne élection day am nañ xool bu baax li ñu def. léegi fi nga foofu sax lay taxaw élection day am parce que dama dégg ñu bari ñu taxaw ni élection yi. Hmm. war nañ ko mën a reporter. Hmm. ay ay voix autorisées la ñu. wax dëgg yàlla du ñu n'importe qui. parce que dégg nañu ko ci Boubacar kamara mu nekk ci opposition. Hmm. dégg nañ ko ci Souleymane Jules Diop mu nekk ci pouvoir. kon bu njëkk bi. moom Boubacar rek moo doon wax. mais bu ñu ci déggee Souleymane mu wax lu mel noonu. ba pare aussi. argumenté ko. mais loolu euh, est-ce que du teey xelu nit ñi que ni dañu jëm ci euh, yoonu dàq élection yi. Boubacar Camara bi mu ko waxee porte-parole gouvernement bi génn na wax position Souleymane bi mu ko waxee am na ministre bu génn wax position ministre des affaires étrangères dafa am lu ñuy wax tuddee calendrier républicain mooy app yi ñi def ay élection fii nag dàq nañ fi élection bu nekk mhm. élection locale yi ñu mujjee mhm. doon wax dàq nañ ko ñaari at législative ay yoon yoon waaw mais ay nit ñooy waxtaan mhm. man sama préoccupation c'est pas ay mandat bu jeex ay mais nañ xool suñu aqulaay taala ak réew mi Boubacar Camara opposition la bokk farul ak ñun nañ jàpp loolu demal déglu ñeneen ñi Souleymane Jules Diop bon xam nga samay relation ak moom. effectivement waaw li tax neexatul woon sax xëy na ci ñi ci lim bokkoon ci ñi doon gën a samp naan Amadou mooy seen candidat. Mm-hmm. loolu moo bokk na ci li ñu bool ku ko jege la. Mm-hmm. donc bokk na ci ñi daan bind loolu tax na ba mais séq nañ jàmm. responsable politique la. Mm-hmm. ku am ay éléments d'appréciation la. ku am analyse la. donc li mu wax noonu defe naa man duma ko commenter moom bu toogee mën na ko mën na ko expliquer. mais nañ bàyyi xel bu baax réew mi. dépassé nañ foo xam ni mënati nañ def yenn nii lépp lu ñuy def na méngoog texte yi ak nit ñi waxtaan ci ba déggoo ci. d'accord mais su ma la déggee mooy yow report bi bañuloo ko. bu bu fekkee consensus am na ci. xam nga ku paree dem. Mhm. ku pare man nee naa la benn projet la amoon ci loolu mooy sama ngëm-ngëm Macky amal na njariñ réew mi fi mu egg tey fi mu toll ci àdduna fii la ko réew mi gën a soxla mais ci ci ci kon su ma la déggee daal mm-hmm. Amadou bu mu ci yow amadu Ba non non bu mu compter ci yow. cest à loolu loolu loolu si rek. c'est c'est c'est trop dire. non non bu mu compter ci yow. mais mënu wax ne que Benno Bokk Yaakaar laa bokk. ba pare ne lu compter ci man non non nga non non mënoo bokk Benno Bokk Yaakaar yow Macky bokk. waaw man waaw loolu dëgg la moom. d'accord man Macky laa leer na alors donc. li ma bëgg nga tontu. mais mais Macky mënul teg ci loxo dara. di ko jéem a puus man may def safaan. Euh, Mame Mbaye. waaw. c'est-à-dire assumer ñu avancer s'il te plaît. absolument voilà. Amadou mën na bañ a compter ci yow. non si il peut compter non, sur moi. comment non, il peut compter sur moi si. non mun non d'abord du du compter ci sa xeex du compter ci sa expérience. pourquoi. non parce que li nga wax mooy waa ji dem da ànd ak moom. absolument doo fi toog non mais après kay quand même kay man nee naa la après j'ai d'autres projets pap loolu moo tax may rey sama bopp pour seetal ñu bañ maa toqal. ah bon man de loolu jaaxal na ma quand même. ah pourquoi position bi nga jël nii bu ko ñeneen jëlee. waaw mais ku nekk nag am nga droit jël position bi la neex man bi may ñëw foofu tàgguwuma kenn bi may dem ci Macky Sall tàgguwuma kenn encore une fois nee naa la taxawaay bi ma am du taxawaayu politicien sequma ak moom politique bu fekkoon ni que politique rek lañ seq kon xëy na banaa parce que man du ma nëbb li ma xalaat damay wax li ma xalaat. alors nee naa la njiit bu amul man njiit njiit pour nga jiite ma. Mhm. danga may ëpp xam-xam. ba pare ma mel ni ma bëgg a mel comme moom ni mu mel. li ngay wax graaw na de. ah parce que loolu man la am na ñoo xam ne dañuy bëgg nga jiite leen parce que dañuy bëgg nga jox leen teraanga am na ñoo xam ne bëgg nga jiite nga jiite leen parce que dañuy yaakaar ci yow nga jox leen position man ban position laa utati. ah bon man li ma dégg nga expliquer ko daal mooy. Hmm. kon moom doyu la njiit quoi. non non non non bu ma doyul woon njiit kon damay dem ni doyu ma njiit. bañ ma indilee ku ma doyul njiit damaa taxaw nii man kii du ma jiite maa ngi dem defi sama yëfi bopp mais nag ku mel noonu Papa Ngagne bu ko wax loolu mu bëgg te wax. mais tamit bu ko egg loo fu mu bëgg te egg. Mm-hmm. yan chance la pour gagner jàpp nga ni dafay gagner sa candidat Amadou Ba. dafay yi mais mais mais en tout cas bu dajalee électorat wu Macky Sall. Mm-hmm. du am jeexi jaax balaa 9h mu pare ci. pour dajale électorat wu Macky Sall. balaa mais électorat wu Macky Sall dafa fekkoon ma mbay doon muyee la mayo waaw keneen ak keneen doon muyee la mayo léegi moom électorat boobu mën a taxaw. moom moo war a jox boppam posture ak taxawaay bu mu dajalee njabootam njabootu Macky Sall taxawaay boobu la war a am ndax mi ngi koy def wala defu ko jàpp naa ni des na mais mën na nekk mais des na de. Mhm. d'accord te bu desee bu ko dajalewul mën na bañ a gagné. waaw mais ki kay man nee naa la bu dajalee njabootu Macky Sall. su ko dajalewul moom bu ko dajalee huit heures et demie élection yi jeex na. su ko dajalewul. ah su ko dajalewul waaw mais bu ko dajalewul kay dajalewu ko donc gëw ma ni que mën na gagné. d'accord. parce que yëf yi du ñi gedd ak ñi dem de. voilà nga xam ni président il reste populaire et yàlla dugal na ko ci xolu Sénégalais yi nga ànd ak moom tournée comme yàlla ak yaali parce que bëtu nit ñi ci kàttanu yàlla commencé nay ubbeeku yu ci bari yu ñu doon wax ay sos la yu ci bari yu ñu doon wax ay yàq-yàq la tey amul kenn kuy génn sa buntu kër ca gisoo ci njëriñ léegi nii ci fin bi nii opposition mi ngi bëgg a jël ay Nicaragua ak ay affaires yooyu li mu def ci xëyu ndaw ñi ak li mu def ci formation wu ndaw ñi. loolu Nicaragua bi réalité la de lu ñu lu ñu teg loxo ay fee la. waaw. Ah, loolu ay fee la quand Nicaragua beeg euh, Lampedusa ak. Euh, mais yooyu ay fela ay fela <laughs> mais léegi et puis gën a graaw nag aussi. no gën a compliqué dafa ndànk gis nga papa xam nga yëfu ndaw ñi nit ñi nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg rek ca yàlla tax Sénégal li fi gën a mën a jox nit liggéey li ëpp fi ëpp bokk fi liggéeykat mën a jóge ci njàng la yaakaaroon nañ ko si ci Prodac. waaw dinaa Prodac yaakaaroon nañ ko ci nag. am na ñu fay liggéey de. waaw mais yaakaaroon nañ ko ci loolu nag. waaw jël na lim mën a jël mais ci njàng lay jóge mhm. boo xoolee xoolal ñaata xale ñooy dem entrée en sixième dañuy xaw a mat cinq mille boo toppee xale yooyu ba université wala ba terminal day des ay cent cinquante mille cinq cent mille moins cent cinquante mille am na trois cent cinquante mille yoo xam ni des na. trois cent cinquante mille yooyu noonu chaque day dajalewu tous les six ans. mu laaj formation. voilà. Mhm. formation wala mu laaj wala mu laaj bu formation amul. boo ma dégloo boo Barça wala Barsaq daa fii des boo ma dégloo. Mhm. en fait doon na baax parce que ñi déglu. comprendre waaw d'accord allez-y waaw naa la déglu. gis nga cinq cent mille yooyu. Mhm. bu bu cent cinquante mille yi mujjee université ña daan dugg cent cinquante mille ya daan dugg université lañ daan jàng université à part médecine. daanoo ci woon génne ak métier hmm. maitrise mathématique maitrise géographie maîtrise lettres maîtrise anglais loolu moo fi amoon école de formation professionnelle yi nekk dix-neuf mille places deux mille douze hmm. président Macky bi mu ñëwee mu ne njàng mi la ñuy njëkk a soppi réforme yooyu Mary Teuw Niane moo ko entamé. Hmm. ñu dugg ci licence LM ñu dugg ci système LMD. booy génn université di nga am métier boo mën a débuter. mu ni cent trois cent cinquante mille yooyu di des il faut ñu ut fu ñu leen dugal. trois cent cinquante mille yi. waaw. Mhm. mu ni programme bi na ut fu ñu leen dugal. mu entamé programme mu 17 lycée technique cent cinquante 000 yële mu ni bu ñu jàngati mathématique ak lettres ak économie parce que tout simplement njàng mi méngootul ak jamono ci bay la ñu gën a mën a liggéey ak ci nouvelle technologie mu créé ñaari université Amadou Mahtar Mbow ak Sine Saloum 17 mhm. lycée technique ay lycée Sandiara ak yooyu yëpp ñu ngi ci construction ñu ñu quarante cinq ENU changer cartographie formation professionnel mais ñi fay jàng fi mu nekk nii génn gu ñu ba mën a liggéey dinañ pare ba dem résultat yooyu soog a génn Sénégal chaque année pratiquement deux cent cinquante mille jeunes dañuy ñëw ci marché emploi quatre vingt pour cent yi banque finance marketing communication lañ jàng mm-hmm. waa léegi lan lan la Macky Sall mën ci nga jàng filière boo xam ne dafa saturé lan la Macky Sall mën ci gone goo xam ni jàngul papa ngañ kër yi yëpp da ngay gis xale bu jàng am ko yam CM2 am ko yam troisième am ko yam feneen ku amul métier mënoo jàng ku amul métier mënoo liggéey mu ni nañ créer DER nañ créer PAPEJ nañ créer PRODAC nañ créer ANPEJ ñu commencé financer du ñëpp lañ mën a financer am na ñu ñuy financer fay ñu am na ñu ñuy financer ñi ngi fay am na ñu ñuy financer réussir ñu donc état ay conditions lay créer léegi fi nit ñi war a xool mooy nañu xool léegi responsabilité bi ci kër bi. éducation de base bi. yaay ak papa. Mhm. ñooy taxawu xale pour mu eggale njàngam. man sama kër am na ñu jàng am na ñu jàngul ñi jàng mais ñi ngi liggéey. ñi jàngul ñi ngi créer ay conditions pour ñu mën a entreprendre seen yëfi bopp. d'accord kër yëpp la. Eh, Nicaragua da ngay gis sénégalais wuy am. non bala ñuy dem ni Nicaragua. waaw non dama lay université bii nga xam ni dafa war a tijji te tijjiwul. loolu itam kaa la. <laughs> Papa Ngagne nan la université bi di tijjee gis nga am na ñaari biir yoo xam ni bokk na ci li gars yi di préparer pour taal réew mi ubbi leen université bi ñu mais ñoom ñoo demoon taali université yi ñoom ñoo jël seeni nit dugal ko ci étudiants yi étudiants yi taal nañ amphithéâtre yi taal nañ kaaru transport yi taal nañ restaurant yi. voilà mais loolu du tere. état defaraat ko. waaw mais état bu koy defaraat dafa am temps. université bi war a ubbi. nit ñi dem nit ñi dem étudiants yi jàngi. ci diggante bi expérience wu du ñu ne rek bu ñu ubbee université yi après violence bi dafay am doole wala nangam. kenn kenn étudiants yi dañuy génn. kenn waxul kenn du ko mën a gérer. ñoom ñooy yàq dañuy tëj université yi ba keroog ñu xam réew mi fan lay mujj. mais yeneen mi ngi yeneen université yi ñu ngi ubbi yi ñu taalul woon yi yàquwul woon définitivement mais ñu ngi ubbi am na yeneen univers ñu ngi ubbi pour l'instant mais xam nga solidarité bi am ci étudiant xam nga ni loolu mënul continuer ñun ñëpp ay étudiant la ñu woon mhm. may wax nii sénégalais yi ngi may seetaan xam nga jomb naa toog fii di wax lu amul taal nañ en fii wala taaluñu en fii ñi ko taal wane nañ seen bopp wala wane wuñ seen bopp taal nañ kaari yi wala taaluñu kaari yi mais loolu dañ ko war a defaraat feneen fi ñu taalul mais foofu ma ngay ubbi ñuy jéem a dugal ci boppu nit ñi naan non dañ ko war a ubbi ay dañu ragal mais pour lan la ñu ragal dañu bàyyi nax nit ñi mënuñu di nax nit ñi ci ay caaxaan ak dëgg mënoo jël dëgg teg fee jël yoon teg fee bëgg a taal réew mi man waruma ko nangu yéen waru leen ko nangu yow waroo ko nangu et képp ku bëgg réew mi waroo ko nangu réew mi am na luñ fi def lépp matul mais jógale nañ ko point A yóbbu ko point B keneen dina ñëw eggale ki sénégalais yi tànn mooy ñëw eggale mais nit ko mais bëgg raser réew mi bëgg yàq xelu nit ñi naan noo xale yaa ngi dem mais boo amee sa liggéey ba am 6 million yoo mën a dajale jënd ci biir nii yaa ngi dem Nicaragua loolu lu ci yoonu Macky yow sa reef nga bëgg dem man mii loolu daloon na ma. Ah man am na ah si. man am na ay jamono yoo xam ni mais pratiquement ñu ñu doon liggéey aéroport yëpp am métier di fayee ko un million cinq cent am ah, am na ay collègues contrôleurs yoo xam ne ñu ngi Canada parce que ça paye plus mm-hmm. mais loolu c'est un choix. Mm-hmm. ki dajale bi am six cent mille dem jëli gaal gi mais loolu la bëgg am ñi ngi may wax bërki démb kenn ku ñu daan jaay téléphone. il se faisait un chiffre d'affaires mais soit mooy mu dajale li am dem États-Unis yaakaar la am mais lañ fay wax amu fa foofu boo demee am nay américains yoo xam ni mais États-Unis amul chômage mhm. France amul chômage Arabie Saoudite amul chômage mais chômeur yi ñu ngi leen muy muy États-Unis muy France. mais yooyu bokkuñu ak chômeur ah. ah yi bokkul. waaw yi nga xam ni moo am États-Unis ak yi am France yow xam nga li ci xew. fin du mois bu nekk nañ la viréel jàppale la ko. mais fii euh, Macky Sall jàppalewul chômeur ah am na mais chômage bi am foofu ak chômage bi am fii. parce ñoom seen ay chômage ak suñu ay fonctionnaire fii sax. moo tax ma expliquer la da nga réew yooyu état bi dafa am. di jàppale chômeurs yi réew mi état bi dafa am mais di jàppale famille yi mag yi ña mais on Macky Sall wu fi di jox six cent mille familles ay bourses familiales yu mu yokk tout à fait tout à mais réew mi fi mu ko fekk mm-hmm. loolu amu fa woon mm-hmm. six cent mille familles yooyu di fayeeku tey ñu yokk sax payoor bi mais daan ñu woon am dara ci nguur gi. moo tax ma ni sama mbokk fonctionnaire yi mais du ñun rek ñoo war a aaki moo alalu réew mi. Mm-hmm. organiser wu en syndicat di sucer lépp. on est dix huit millions. Euh, loolu xalaat la moom bu nañ ba xalaat nañ bàyyi ñeneen ñi. du yomb nag. ba léegi am na ñu amul ndox. ba léegi am na ñu amul courant. mais ci diggante bi mu fi toogee ak tey bi ñuy wax. wallahi azim ku wax dëgg ca yàlla tax xam ne ay million yu sénégalais ñu ngi naan. Mm-hmm. ay million yu sénégalais ñu ngi faju mm-hmm. ay millions yu sénégalais ñi ngi jàng ay million yu jeunes ñi ngi liggéey loolu mooy dëgg mais keneen ku yàlla jox réew mi nga ñëw eggale mais ñu bañ a saax saaxee réew mi ku bëgg a taal réew mi nag di nga jaamaarloo am ñu nguur yàlla moo koy joxe nee na bu koy jël da koy foqati xam nga foqati day metti mhm. mais ku gore du metti parce que da xam ni ko la la war def nga ko mais lépp ñu teg ko ci dëgg ci njub ak ci yar merci beaucoup jërëjëf euh, ma Mbaye mhm. xam naa ni boo demee di nga ma wéetal man ah, <laughs> ak ñi nga xam ni ñooy seetaan faram fàcce di nga leen wéetal trop waaw mais yàlla rek a euh, xam parce que li tax may wax loolu mhm. mooy vraiment mhm. ku la dégg dina xam ni yaa ngi wax ak xol yaa ngi wax ak franchise te loolu lañ la mën a seedeel euh, vraiment man seede boobu laa mën a def mën ci yokk beneen nag parce que da ma laaj tout à ni ma engagement bi ma bi nga gis ma am ko est-ce que ñi ma bokkal langue gi amee nañ ko noonu man ne la déedéet xam nga lu tax loolu mhm. dafa am bis ma invité kenn mhm. ci côté gouvernement bi ñëwul mhm. fekk débat la woon da ma woo ni ma pap bis boo invité kenn ku bokk ci ñun bu ñëwul woo ma fu ma mën nekk ma ñëw dëgg la loolu nga ma wax noonu dëgg la dëgg la dëgg la nga ni ma ku ñëwul woo ma man ma ñëw dëgg la man dama war a ñëw dëgg la parce que combat bi suñu combat la ñoom mën nañoo toog mais man du ma topp. absolument dëgg la. ah donc loolu aussi su fekkente ni am na mën naa ko seede. Euh, di wax ni wax fa dëgg yàlla euh, boo demee ci ñi ñi ñi ngay gën a wéetal man ci laay bokk. ak ñi nga xam ne ñooy seetaan faram fàcce. xam nga nit euh, franchement. nit waaw. damay seede ni man peut-être ci yow la ma ñëpp xamee. dëgg la. ma xam tamit ci yow dëggu ak maandu yamale ñëpp. Mm-hmm. waxuma ko pour bàqu mais ñu bari bëggoon bëgg nañu ma ñëw toog seen émission duma dem. Mm-hmm. parce bokk naa ci ñi décidé nii dootuma waxati ak koo xam ni bëggul lu leer. Mm-hmm. wala dafay wax pour jéem a yàq wala loolu yàlla dépassé na ma loolu dama koy nangu dépassé. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy wax dëggu yàlla ku ñu naw nga. parce que nit dama buggul woon yàq yàq wax bi rek peut-être ñi ñuy seetaan mais xale xale yi. nañ dem xool yow sa jaar-jaar. comme ni ñuy mën a dem xoolee jaar-jaaru président Macky Sall ak yeneen jaar-jaar. liggéey doo ngay fay. ci àddina xëyul xëy rek sotti. man yow ma lool mën nga ci bindaat livre. tout à donc sabablu. ak taxaw ci dëgg. loolu mooy nit. dara jombul doomu aadama mais teg ko ci dëgg ak ngëm-ngëm. leneen li ci des lépp yàlla la. mais di ñu wéetal nag. waaw mais man amu problème. <laughs> non mais <laughs> non mais xam naa ni bu fekkee demee na noonu moom. dina uh-huh. di nga ñu wéetal. Uh-huh. mais xam naa ni peut-être sa sa décision la. Mm-hmm. Euh, du ñu def lu dul euh, apprécier ko. et puis xool aussi est-ce que changement ci diggante bi mën na am wala mënul am. alhamdulilah xam naa ni yéene lañ am. voilà. et ci ci ci yoon boobu la ñuy dox. te loolu dafay dëggal sa engagement. politique vraiment ci côté président de la république. du du du du du politique man ak moom. d' accord waaw merci beaucoup jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon faram fàcce ak le ministre du tourisme. ak loisir malheureusement bëggoon naa ñu wax si parce que dama amul sax lu ma si wax nag wax dëgg yàlla non non man awuma lu ma si wax parce gisuma ci animation franchement gisuma depuis nga jël tourisme bi ak loisir bi ma jëlaat ko non nga jëlaat ko bougé wul donc gisuma non mais du ma si <laughs> du ma si soti quoi nañ bàyyi noonu quoi bon ma dalal xelu ma dalal xelu kii rek euh, hôteliers yi surtout ñu nekk ci bitim réew mhm. ñu ngi sant yàlla ministre des finances ci décret d'avance bi comment egsi na ñu ngi def dispatch bi dinañ def suñ kéemtalaay kàttan engagement yi président jël yëpp ñu def ko. d'accord mais duñ dimbali ñu mag ñi ñu ndaw ñi la ñuy dimbali ñi am doole nañ xaar. d'accord <laughs> beneen yoon mais bii ñu jàppale ñu am. d'accord merci beaucoup jërëjëf mbokk yi mu nekkoon jëwriñ ji ñu denk tourisme ak euh, loisir nekk kàngam ci parti bi di APR Mame Mbaye Niang li ma ci def témoignage xam naa du ma si dellu si waat xam ngeen ko bu baax a baax euh, ñu leen di jox rendez-vous incha allah euh, ci beneen.